couple bi ku nekk xëy na nga ci am bu yag am nga ci sa papa amoon na ko wala mës nga dund ak mom quoi mais Vespa dafa nek amatul tay Vespa amatul quoi donc. Euh, dafa nekkoon au mode. waaw dafa nekkoon au mode quoi moom laa indiwaat. indiwaat fàttali nit ñi. voilà nga xam ne moo fi nekkoon. am na solo. nice na léegi ay bés bi nga fi def ni nak oui, je ci je toujours mur bi la. Mhm. lim la suis toujours mur Je da ngay gis Je accumulation par exemple bind ci mur Je mhm. suis toujours bi dessiner toujours après quand def par exemple Je suis bi. Mhm. daf ko pour wane ni atelier bu quoi. donc man dessin yooyu yëpp. waaw léegi man man léegi xam naa tableau yi tey jii euh, su ma ci bëggoon wala tey jii ki nga xamante ni mooy sunu DG bëggoon ci. Hmm. tableau yi war na cher de ah. ah ñaata bii nii ma ko bëggoon jaay ñaata nga ma wax prix ah, bi non wax ma wax prix bi rek. non ma ko rek. ah mënoon nga ma wax dama koy jënd de. soo ko waxee non boo ñëwee sama atelier moo wax la ko. ah fii doo ko wax. non kon ñu xool yeneen tableau yi. kii mooy festival de jazz de Saint-Louis. waaw kii artiste benn festival jazz Saint-Louis. da nga demoon mooy comme li mu la wax rek concept bi xam nga da ngay ñëw toujours bu festival jazz Saint-Louis di am da gis ville yëpp dañuy def ay affiches naan festival jazz Saint-Louis. ni ñu koy defee ci mur bi. ak mur bi ak nu muy am yeneen écriture ak accumulation mur bi taw bi nu mu ci dem ba mur bi am rature man loolu yëpp laay. No aumento tá. hum, é? é de peso para ácido. Y ven a saxoleo. ok a saxoleo. We, we developed to the Africa my home. Wow, wow. Uh, uh, summer, summer, summer Africa. Africa. Wow.

te du laal kenn te du comme donc c'est est pour wane que Afrique fi amna fi ay réalité yu bëri yoo xam ne ngi ci société donc mais tant que dund loko ko ko xam. donc Africa maa ko mo nek noonu. bon tam Afrique bon ki c'est un jazziste africain. Mm-hmm. mu ngi ba New Orleans. mais toujours racine africanité bi dafa nek ci mom xam voilà donc. loolu lay symboliser quoi. d'accord léegi moo tax nga génne si ay picc yi. waaw ay picc yi ak yooyu. bon monument yi immeuble yi gis nga out of Africa voilà quoi. waaw ñun nag Afrique lañ am franchement dañ koy tiital wala wane ma ko quoi. ñu avancé dem ba ci waaw kii moom lan lay dawal moom. kii Vespa bi lay dawalaat. Vespa bi lay dawalaat. scooter.

donc mu amoon benn euh, kiiwam euh, ñoo xam ne ñoo yore xaalisam ñu comptable ñu ñëw ci Île de Ngor mu ne ma mais man dama bëggoon jënd benn bant Transgal ci mm-hmm. nga peintural ma ko mm-hmm. est-ce que mën nga ko ma ne ko mosuma ko def mais naa ko essayé mm-hmm. rek ci laa def kii bi rek mu inspiré wu ma ma ma jël bant bi rek liggéey ko nii rek donc depuis boobu dañ ma koy commandé. la inspiré tey jii ba nga jël bant bi bi mu la waxee bant bi. non c' man dama bëgg a prouver que même bu euh, xam nga Basquiat boo ko xoolee bu baax moom dafa doon ñëw sax frigo am sax daf ko doon peinture. te tey waaw te frigo mu tey mm-hmm. ay milliards lay jot ndax peinture bu mu ci def. day fekk buntam peinture ko. Mm-hmm. léegi yow bi nga defaree après euh, bant bi nii ah. defar ko ba pare après da nga ko obligé jaay ko ko wala. non moo ma ko mu ma defar ko ko ma mu mu jaay mu jënd ko yóbbu ko léegi depuis boobu mm. euh, ku nekk da ngay jënd sa bant indi ma defaral la kii borom kër gi moo ko kii moo ko. d'accord kon su ma jëndoon bant man su ma ñëwee ah, ko. <laughs> kii moom borom kër gi moo ko. Ah, ok waaw kii petit boulot la. petit boulot waaw maanaam. ci suba si dañuy nekk ay cireur de chaussure. waaw seen président woon na leen ko ne da ngeen bëgg liggéey bu yomb. ban président. <laughs> est-ce que du foofu moom yaa ngi yaa ngi bëgg a jàpp dama la ne sunu mbokk tukkuleer yi. petit boulot nga waaw waaw mm-hmm. petit boulot suñu mbokk tukkuleer yi loolu bokkul ak pël Fuuta mm-hmm. lim lay wax tukkuleer yi petit boulot ñoom bu ñuy jógee Padoor wala Matam wala te bu ñu dañuy tàmbale par exemple ci Siré de Soussou après ngoon bi ñoom ñu dem nekk photographe la nuit. d'accord léegi dañuy am waaw waaw duñ ko xeeb mm-hmm. loolu lu encourage encouragé la parce que loolu góor noonu la quoi waroo toog nii rek. wala dinaan man booy town naa lii ak lii ak lii. waaye xam naa ne dañoo diñ nag macha allah waaw waaw ñoo commencé ci petit boulot yi di jaay brochette di def lu ne. ba ëllëg tu vois. avancé ci waaw dëgg la am kii table yi des na. toujours festival jazz bi nekk. waaw ñu yor saxo bon léegi euh, tamit liggéey bi xam naa mu ngi doog a feeñ quoi. parce que liggéey bu bees la. parce que bu njëkk rek fii rek laa yemoon mooy ci tableau yu mel nii. mais hmm. léegi boo seetloo am écriture léegi bi tableau bi waaw bii laa mujjee def parce que loolu tam dafa am importance. artiste bi da war a nekk koo xam ne da war a gestu. bon bëgguma cité yu bëri mais xam nga grand yu bëri lan moo leen sonal seetlu bu baax. xam naa boo leen fi jógee di gën a nag di seet si artistes yi. parce que tey peut-être xam ngeen lu ngeen xamuloon. ci ci mais gis nga artiste Sénégal bi xam nga lan moo ko gën a sonal.

genre ah, bi quoi. waaw léegi lii mooy nekk tableau yu bees yu Sadio parce que chaque cinq ans man dama bëgg arrêté li ma doon def nekkaat di leneen. léegi loolu yëpp dina koy may ba recherche kii recherche yi nga xam ne. ak voyage yi ak voyage loolu moo la permettre lii kon donc dañuy wax rek à chaque fois ni xamante ne ñu nekk ci milieu art nañuy dem di nga di defi recherche parce que lépp loo bëgg rek da ko war da ko war a jàngi jiwaat wala nga di ko gëstu di dem di xool ñi nga xam ne euh, ñoo la ci jiitu ngay dem di collaborer ak ñoom di xool ñoom métier bi ni ñu koy defee. et puis fàtte naa leen wax sànq euh, man dama leen wax voyage moo def Europe rek tamit dama def dama am chance ñu sélectionné moom pour euh, me représenter Sénégal mm-hmm. ci CEDEAO benn exposition bu ñu doon def mu nekk atelier résidence Bamako ah waaw mu nekk kii bu ma neexoon quand même parce que artiste Bama waaye dañu nekk nit yu baax yu mm-hmm. laabir bu ma sañoon foofu mooy nekk sama deuxième dëkk quoi ah tellement que dama fa dem mm-hmm. dëkkandoo ensemble ne ma nekk seen école des beaux dem dem Balla Faseke seen non mais man mun ma comprendre. léegi naka loolu laa la wax man mun ma comprendre ñun ñu njëkk leen am école des beaux ñoom ñu dem ba am école des beaux ba pare am conservatoire boo xam ne. Oh. boo demee ba génn école des beaux dañ lay yóbbu ci benn montagne boo xam ne sorewul palais bi ñu def fa im ganti kii laa la wax espace boo xam ne pour artiste la ku ah bëgg a jàng wéy foofu ngay dem répété xam nga fu ngay répété ku bëgg a def jembe di nga dem ku bëgg a def théâtre yaa ngi fa ku bëgg a peinture def xoolal mat na ngor bi yëpp léegi yow loolu. waaw lu tax ñun loolu amuñu loolu Sénégal loolu léegi yow état bi. waaw boo demoon bay wax ak état bi ak ki nga xam ne mooy ministre de euh, la culture lan nga koy wax ban message nga koy lancer pour xam nga même bon ministre la culture man man mm-hmm. dem ci moom. waaw ah, peut-être bu ma demee ba ci kanam ma gën a siiw nii dina ñëw ci man. mu ñëwee ci man moo naa ko laajte doléance mais fu ne nii man ak sama. sama temps sama emploi du temps permettre moom maa ngi may dem. waaw mais nga xam nga xam nga tey jii nii man mënuma jënd ay hectares. Hmm. ñoom ñoo ma ko gën a xam. Hmm. ñoom ñoo gën a xam culture mais du ma leen jàngal seen liggéey quoi. Hmm. te xam nga rek dëkk bi moom am na foo xam ne tamit fa ngay yem sa yemal sa wax quoi. <laughs> kii mooy Dakar Dakar dem dikk. waaw boo njëkkee ñëw Sénégal du lay njëkk a frappé mooy lan. Dakar dem dikk ma posé la question ah très bien. car